alhamdulillahi rabbil alamin bi sunu boroom dimbalee ba boole noog Cheikh Mat Bamba sunu yaakaar ñi ngi wax jërëjëf sëñ Touba ñi ngi nuyu waa kër sëñ Touba yi fi nekk yépp ak këru diine yépp di jël sunu nuyoo di ko teg ci loxo sëñ Murtala mu jottalil nu sëriñ Muntaxa sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wax naa ko bërki démb ni ko murid yi amuñu sa fay wax nanu fu nu toll di wax yàlla nga fi yàgg te wér ma ni ko tax nga kenn mënatul yàpp murid su dee gëm yàlla gu sell kennal sa borom wane nga ko ba àddina bi yëpp gën naaw murit yi yamul foofu jëkk dañu jàppoon ni murit jaayir la tey ngay woote université jàngukaay bu gën a mag kon weesu nanu tey nit ñi di man xalaat murit jaayir la yàlla na ak àggale université bi ba man sumbaat yeneeni chantier sëñ Mourtala sant naa la bu baax gërëm naa la yow nit ku dëggu nga nit ku bëgg sëñ tubaa nga nit ku jox boppam sëñ tubaa nga waaye nag kuy sa waajur sëñ Abdou kenn dootul werante sa taxawaay sëñ Abdou ñépp xam ni léppam sëñ tubaa la yàgg na wax ni jarul yëkkati mbagg kenn doonu si dara kenn defu si dara lépp sëñ tubaa la mm-hmm. nee na fa mu nekkoon amul woon sax ku ko téye sa talaam su daan ñaan amul kenn du wax amin moom képp ak boroomam kon lépp moo ko liggéey kon li nga defal sëñ tubaa ba pare ñu tudd la góor yàlla Cheikh Mouhamadou Mourtada mu tasaare sëñ tubaa si àddina bi li nga ko defal rëy na lool te dégg naa da nga fas yéene wër Abidjan sëñ tubaa fépp lañ ko war waxe ku bëgg mbindee fii rek dangay fexe ba yóbbu waxtaanu sëñ Touba ñu dégg ko ku dégg sëñ Touba bëgg ko su soo ko bëggee dara dootu la sax man xam naa ni li nga ma defal sëñ Touba war tax moo tax lépp lu xaw nuru politik bi may ñëw dama ko si dindi dama ànd ak samay mbokku taalibe sama directeur de cabinet sama chef de cabinet sama assistant ñu jóge Dakar sama délégation képp koo xam ni dafa fës ci politique dama ni la baal ma ma dem te ñëw ndax yëfu sëñ tubaa daf ma gënal àddina ak li ci biir wax naa ko sëñ Mountakha ba dégg te sëñ Mountakha moo ma ko nee na bëgg sëñ Tuubaa nee na bëgg sëñ Tuubaa moo gën àddina ak li ci biir barki démb wax naa ko ni ko soo ma ni woon bu ma ñibbi Ndakaaru dootuma ñibbi Ndakaaru waxuma politique lu ma mënul fekk Touba danaa ko wan gannaaw ndax sëñ Touba ma gënal àddina gi si kon li ma defal xam naa ko booleeg nag nga jël tudde ma bésu soxna jaara bëgg gu ma bëgg sëñ Touba maa ngi waatal mbooloo mi néew na ma tëdd si lal te ñaanal ma soxna jaara moo tax ñu am sëñ Touba amuñu fayu soxna jaara moo ko liggéey si soxna jaara lay jaar foofu di ziyaar soxna yi fi nekk yépp waaye tàbb si soxna Baali Muntaxa moom bàyyi faalu soxna jaara la tama xam si lu rëy moom dafa jaay njureel gi jënd ko taalibe am na ñoo xam ne màggal moo leen yóbbu poroxaan walla soxla waaye moom poroxaan la dëkk jamono dafa toog ba yàgg saa damay dem toggali xale ya nekk poroxaan bàyyi lépp dem toog poroxaan dajale teraangu yu bari di fa togg ay fan di leen berneel ci taxawaay bu rafet bi lay taxaw mu doon nag soxna jaara wax jooju réyul ndax sëñ taxaw moo ko gërëm yóbbante ma ngërëm si mboom waaye dama lenn benn jafe-jafe rek la am mooy dama koy wax mu bëgg di noppalu di teq laxasaayam te mënuma si dara moom fu mu toll di bëgg di sonn di sonn rek nii la ma ko waxee kon la ma la doon ñaanal di la ko ñaanal toujours en privé maa ngi ñaan mu dal la liggéeyal nga Cheikh Muntaxa yaa ngi liggéeyal sa maam Soxna Jaara laa ngi liggéeyal sa maam Sëriñ Tuba yàlla na la ko fayee ak ngërëmu sëñ Muntaxa koo xam ni doo teqli ko mukk ak gudd fan ak weer ñu ngi la koy ñaanal ba mu sa képp ku la xam rek xam ne yaa ngee berne amuloo nelaw guddi amuloo nelaw feebar sax da ngay jug di liggéeyal sëñ tubaa yàlla na la sëñ tubaa fay li si des mooy fàttali rek ni ñun amuñu kuddul sëñ tubaa te nag lii sëñ Mourtalla dafa rëy sëñ tubaa bi ñu ko doon yóbbu géej seet leen si histoire xëy na sama xarit le professeur Jaxate maa ngi lay nuyu di nuyu ñu nekk ci table bi yëpp xëy na war nañ ko set ci histoire gisu leen kenn ko dem Kaaba ba dellu si déedéet ku dul sëñ Touba ñoom bañ ko doon yóbbu Gabon dañ ko fa doon yóbbu pour mu des fa wala su fa desul fàtte ka tey sëñ Touba fu mu jaaroon ñu ngi koy màggal da ngay seet weer wi septembre bi rek konte naa am na juróomi màggal yoo xam ne jaar-jaaru sëñ Tuubaa la mi ngi tàmbalee fan ko doon artiste biir pale gouverneur ñu bëgg ñëw fii ñu jóge fa dem julli géej gi jóge fa dem ñetti fanu ndakaaru wi ak yeneeni màggal yoo xam ne am na nga xam ne sëñ Tuubaa yàlla fay na ko am na ndam si tubaab bi am na ndam si ñépp kon lii ngay def si loolu la bokk ñu ngi dellu di ziyaar kilifa yi fi nekk yépp te di wax ni ñun la sëñ Abdou Lahad waxoon rek moom la noo dund sëñ Abdou dafa doon yóbbante kooku mooy jàmbaar dafa jëkk wax sangoor ni ka mosu leen gis ko comme as wax président sunu bàyyi daf nu ñagalee alxuraan wax ni ku nekk sa gannaaw ñag ba bun ko wuyu seytaane la kooku sëñ Abdou Lahad moo ko wax mhm. yamati foofu ni medun dama la yóbbante ngërëm jëmale ko si Abdou Diouf waaye bala nga koy jottali ngërëm li wax ñeent yi defoon ko ku dul sëñ yaakaar wóolu doyloo bëgg ragal defoon ko ku dul sëñ man looloo ma daal jërë ngeen jëf